dalee nag jàmm ci seen bi to learn English with Mr. Ba in the best way to conjugate and try to speak tey nag dañuy ñëw ak yéen comme ni ñu ko junjee woon ci vidéo bi passé mooy vidéo numéro un ci li nga xam ne mooy temps past yi ndax douze présent four past four future. quatre présents yi def na ci vidéo mooy vidéo numéro quatre parties moom la ñuy def nii tey dinañ ñëw yéen si yan auxiliaire ñoom lañu war a ànd ak ba léegi moo xam kan avoir muy verb to have ak être muy verb to be ak yan verbe wu ñoo yi nga xam ne ñoo war a ànd ak present time yi ak yi nga xam ne ñoo war a ànd ak past time yi ak yi nga xam ne ñoo mën a ànd ak future time dinañ ko leeral benn par benn insha allah bu mm, vidéo bi ak let's go ok nañ jël verbe bi nga xam ne mooy verbe to speak ba léegi to speak mooy infinitif bi comme niñ ko xamee speak mooy main verbe bi waxoon nañ ko spoke moo ñu interesté mooy li nga xam ne mooy passé bi parce que ci temps passé lañu war a wax incha allah spoken mooy participation bi dañ ko gis si présent yi dañ ko gis si passé li nga xam ne pass temps participe 4 la pass past simple pass continuous pass perfect past perfect continuous dañuy commencer ci past simple ok I spoke we spoke you spoke they spoke he spoke she spoke it spoke nga xam simple pass. wala past simple si anglais verbe bi dara du ci sens subject ñoo bokk même même forme bi ñu jël si past ba légui nga bàyyi xel ne simple present mooy present simple bi moom du soxla auxiliaire bu ànd ak moom bu koy dimbale

fekkee ci voie active ngay waxee mais moom itam moo am droit ànd ak yi nga xam ne mooy bi demee ni can wala may wala want ak yeneen modal verb yëpp exemple man nga wax ne I can speak English gis nga I can speak English waaye mënoo wax ne I have can speak English mënoo wax ne I am can speak English kon kenn mëntu ànd ak present continuous mënta ànd ak present perfect continuous mënta ànd ak past continuous mënta ànd ak past perfect continuous moom kenn léegi ñu dem ci past continuous past continuous nag dañu conjuguer li nga xam ne mooy auxiliaire être au passé plus ko moom I was speaking He was speaking. She was speaking. It was speaking. You were speaking. We were speaking. They were speaking. lii mooy ni ñuy conjuguer past continuous léegi dañuy dem ci past perfect moom itam dañuy conjuguer auxiliaire avoir au passé mooy verbe to have doo ko mën a I had you had, we had, they had, he had, she had, it had. Dibogo ko sige. Gogo please at spoken mo'y participatif verb bi ngay conjugué ok moom mooy troisième position ok mo'y troisième ni I had spoken we had spoken you had spoken They had spoken. He had spoken. She had spoken. It had spoken. Degi, nii dañuy conjuguer past perfect léegi dañuy jëm conjuguer quatrième bi mooy past perfect continuous fat fàttaliku ne mom, subject lay nekk plus had mooy auxiliary avoir plus participe du auxiliaire to be Please verbe bi ñu war a conjuguer ak ing moom nag mooy quatrième bi example I had been speaking we had been speaking you had been speaking they had been speaking he had been speaking she had been speaking it had been speaking ni dañuy conjuguer li nga xam moy past time yi muy kat temps muy past simple past continuous past perfect past perfect continuous bu ngeen bëggee di seetaan vidéo yi di am yi si topp da ngeen di abonné bës cloche notification bi ndax ngeen mën a am vidéo yi ñu dugal directement vidéo yi di ñëw incha allah dañ ci mottali li nga xam ne mooy wàllu conjugation bi li des mooy quatre temps yi nga xam ne temps futur mooy future times incha bye